maa ngi soog a gis nit koo xamante ni moo gën a xaraam ci nitu politique parce que nit koo xamante ni la muy wax du safaanoog dëgg nit koo xamante ni amul ngor du rus du RS gàcce du ko rey day dëngal mbaxane di def trafiquant d'influence di tuddee boppam ay turu imam alors que saay-saay bu bon la alors que du nitu jàmm alors que nit ku mën a fen la alors que nit ku mën a kàcc la alors que nit la boo xamante ni soo saytoo gëstu ko ba ci biir biir di nga xamante ni fi xaraam suqe ko xaraam lu ñu naan diw dafa xaraam mbaam xuux dafa xaraam sàngara dafa xaraam yaakaar naa ni moom ci nit yu xaraam yi foofu la soqee ko yan kàddu la yëkkati teg ko ci ñi nga xamante ni mooy candidat yi nga xamante ni ñi ngi jëm ci élection moom amaana dafa tekkiwul ñaari salaamaaleykum gëmul lu muy wax gëmaatul boppam maanaam fen la fi nekkee suba ngoon guddeeg bëccëg topp ci ginnaaw Ousmane Sonko foog na mën na nax Ousmane Sonko jamono jii nag la mu doon enquête a jotootu ko mi ngi bëgg a changer versam pour delluwaat di neexal wala di xalamal kii nga xamante ne mooy Macky Sall Macky Sall dafa soxlul ay nit yu xaraam ci kanamam pour ñu koy waxal nañu déglu ji nit ko xaraam kii yan kàddu la yëkkati. Khalifa lu baax li ma lay wax nii. Khalifa Sall nga wax. Idrissa Seck Idrissa Seck. Amadou Ba Amadou Ba. PDS. PDS mooy ñoom Karim. ñii ñëpp. wala moo tax mooy doon nga tudd Karim. no Karim du ma ko tudd Karim existé wul. ah oui loolu existé wul loolu dinañ ci ñëw. Ah. bu may wax PDS PDS bu ñu amoon. fula sax Karim tey maa ngi lay forcer Karim Karim. mais yow man Karim du damay tudd ku ñëw fii di dund li nit ñi di dund. man du ma tudd ko am ci ay kilim ngay fanaan ñun ñii de nokki ay lacrymogène nga ñuy wax waxi Karim man bu ma la ko wax ñii ma lay wax nii xoola ñooy système bi. waaw ñii ñëpp koo fi teg Khalifa Amadou Ba. Euh, Idrissa Seck ñooñu daal xam nga li may wax dafa sérieux <laughs> dama bëgg <laughs> dama la bëgg wax ni système boobu noonu xoola képp koo fi teg laa la wax uh-huh. koo fi teg bàyyi fi Macky Sall la ko gën hmm? barke Cheikhou Tidiane man damaa gëm ni dallu Macky Sall moo gën Idrissa Seck nee na moom mooy chef non déglu li may wax ni billahi allazi la ilaha illa huwa li ma gëm laa lay wax hmm. am et conscient hmm. dallu Macky Sall gën Idrissa Seck Idrissa Seck di nga ko jox réew mi yow ci contexte bi parce que xam nga li ma wax. waaw defaluma ko. Khalifa Sall daf ñu Khalifa Sall daf ñu yoreel xaalis daf ñu ko war a fay man damaa gëm ni Khalifa Sall escroquerie lañ ko toppee loolu laa gëm ba koroog may gis leneen. parce que yow gëmoo loolu yow justice waxu ko justice néewul Khalifa Sall escroquerie lañ ko toppee wax na ko wala waxu ko. ah biñ ko toppee ba ca biir nee nañu Khalifa Sall. non jibi jibi jibi yow yow ko bàyyee. non waxuma waxi bàyyi. yow déggoo fii ñu ñu ni Khalifa Sall. teg nañ ko teg nañ ko yoxo yóbbu ko kaso tëj ko. mais luñ ko toppee bu escroquerie. koppar nee ba. waaye waxuma caisse d' avance. escroquerie loolu baat bi il faut ñu am courage wax ko escroquerie mooy koy sàcc bañ jàpp la loolu lay koy toppee. te ba léegi defuma ko sàcc justice moo ni sàcc la. il faut man waxuma ni sàcc la justice moo ni escroquerie lañ koy toppee yaa ngi dégg te xaalis bañ ko doon toppee ba léegi waxagul fan la ko dugal kon escroquerie laa jàpp Karim Wade justice nee na 148 milliards lañ koy toppee kon damaa jàpp ni 148 milliards ku ko luubal ci am réew sàcc nga loolooy dëgg ñii seenu sàcc dafa leer moo gën a jant bi ci ku gëm yàlla nga wax loolu billaahi loolu laa gëm parce que fii justice néewul duñ sàcc damay gëm ne ay la parce que man gëm naa sama justice su réew article. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni nit ku xaraam ki yëkkati na ko moom balaa muy toppatoo ay candidat jaamur ñooñu ay candidat lañu am na lu ñu def ci réew mi teg nañu ci réew mi ñu mu cité ñam nag ku ci nekk am na loo teg ci réew mi su dee PDS ñoom ñoo fi indi alternance jëlee fi PS pendant plus de quarante ans ñu teg fi ay jéego ba Sénégal ñu bëri mën a gis seen bopp su dee sa Seck moo àndoon ak Ablaye Wade di liggéey indi fi ay chantier indi fi ay progrès am na lu mu fi def su dee Amadou Ba daf fi teg ay jéego ba ci biir ay noona ak ay nawleem président Macky Sall tànn na ko def ko kandidaa moom nag nañu wax lan la tekki ak lan la def tekkiwul ñaari salaamaaleykum lenn dong la tekki Sénégal mën a fen rasatati amplification nekk ci yoo xamante ni yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko kon yaakaar naa ne su ne ñii ñoo gën a yées ab dàllu Macky Sall moo gën ñii. je crois que mi ngi waaj a mi ngi waaj a parce que kenn xamul fu mu far benn jour Thérèse fay mos na ko ci benn plateau Sen TV fii nga ñëw ñu jox la suñ la joxatul nga commencé gedd ñooñu duñu ay nit ay rabu àll lañu ay nit yu xaraam lañu ay mbaam lañu te ni ma koy waxee saa su ku ko xool gëstu ko ba ci biir dina xam ne ci lu xaraam la juddoo moom tout simplement parce que lu xaraam weesuwul nga war a juddoo ci xaj wala askanu mbaam wala askanu mbaam xuux parce que genre nit yu juddoo ci askanu xaj askanu mbaam wala mbaam xuux rek ñoo mën a mel nii moom nag génnewuma ko ci ñooñu duma ko ci mës a génnee parce que bu leen fàttee maa ngi ak vidéo bi muy taxaw di naan man doomu xaram laa danaa ko d'accord waaye man dama dem gëstu ji ba nga waxee yow da nga waroon gëstu ji ndax man Tange Tandian doomu xaraam laa ba pare man damaa gëstu ji ñu ne ma soit sa waajur bu jigéen sëy nag xaj mbaa sëy nag mbaam xuux mbaa nag mbaam xëy na nag ñàkkul ci man boobu nga juddoo moo tax yor jukko xaj jukko mbaam xuux ak jukko kon soo taxawee di wax tey ay dàllu Macky Sall moo gën ñooñu am na lu ñu tekki ba Macky Sall na leen yow xaaral ba ñu tànn la yorul jikko gor moo tax ma ne souvent éviter leen genre. jëli jëli.